non man moom wax dëgg yàlla man moom du ma fenn sama waxi daaw la mooy sama waxi ren man moom wax dëgg yàlla man moom Baye Fall laa man moom du ma hmm. waaw man moom du ma fenn quoi te parce que moom fii moom waa lu waay def sa bopp. Pikine mënut a tas Pikine mënut a tas Pikine mënut a tas maanaam dolli may ñooy tas Pikine waaye Pikine mënut a tas. ñu wàlliyaan si nag ñooñu sonal quoi lii yëpp ñoo ko indi lii yëpp ñu fi dëkkul juddoo ñi fi juddoowul yarawuñ si màgg ñëw fi. ñooñoo ñu sonal quoi. jërë ngeen jëf mbokk amateur yi jërë ngeen jëf yéen ñuy siiw si Thioker TV kon nga wax rek ñu ngi biir Pikine si ah, café gi ah café gi nag mafia bi dafa rëy ñëpp fi nekk ñu ngi boobu coor lañ nag si café gi ah. biir Pikine fekk si gars yi champion mag ñoo toogal nii Pokola mafia bi yëpp nekk fi dañuy bàyyi kenn kenn mu wax ñu nuyoo ñu waxtaan weer koor geeg yooyu gars yi mafia bee café gi Baye Fall ziar naa la. looloo ziar. tur bi. man Mouhamad. Mouhamad. waaw. waa lépp tawfeex. waaw sant ku tedd ko rek. Ada Bayor. ah waaw. doomu nday kan. Poko Mbaam. <laughs> Ndobin bi. mais noonu lañ dundee café gi ak weeru koor gi. café gi waaw mooy loolu noonu woor ak jàmm rek. Mhm. di ko ñaanal jullit yëpp. Mhm. kooru jàmm génn seeg jàmm ak salaam. Mhm. waaw loolu tey nga nekk ay Baye Fall nekk ay nit koo xam ne nit ñu baax jël seen ñaq jël ko defar ay café ay dute di ko jox jaamu yàlla yi suwaa bi la la jógee. waaw loolu ñun Baye Fall bu ko def si seeb nga ko gisee rek waaw. Baye Fall moom bu ñu koy wax say Ibra moo tax te yoon bi yëpp moom la tamit loolu la ngeen di def jëblu ñu si lenn lu dul lu baax moo tax ñu koy def quoi di ñaan war ak jàmm le 5 mai mooy loolu ñu dem ah. tooyal ngemb li ah. ndóobin bu ñuul bi ñëw jaay saldal ko ba mu salde ah. waaw mooy loolu borom la 5 xaar ma demaat si keneen Baye Fall ziar naa la. ziar naa la bu baax. ba lépp jàmm. lépp taw booy xëy. ndax activité yi. sa bu baax. tey yëriñ si café gi. jox jaamu yàlla yi ndogu ji ndogu. tay suwabi lan la asawar xam dafa tombé rek dañ bu tombé rek tuddu la rek ma yalla ba yalla si yalla def sutura rek yu dugg nañ ci koor yi alhamdulilah yalla ci kenn ba kenn ci ak jamm ngeen toga sen doomu nday pokola mu wara jëm ci bis la 5 ala 5 kon nañ wara daan rek dem daan bisé amul xalaat amul leneen bar señ sëñ ñu pokola rek lañuy top mom lañu am xaw a dem si digg bi digg bi dox bee ngi nice. na xëy cool nii. kafe gi weeru koor gi poko bu am toog nii di waayal la cinq kafe gi ak weeru koor gi. kafe ah, ah poko yàgg naa nekk si kafe gi. waaw. Ah. Mhm. tey buñ buñ gisee mbër ñëw toog seen bopp koñ da ngay xoolaale caméra ñëw toog seen bopp koñ. du ah. xool jaamu yàlla yi dëkk si koñ bi ngay di servi café di leen jox ñuy naan tey suwaa bi lan la. nga ne mbër. nekk bopp koñ bi waaw mbër. ñëw toog si bopp koñ bi. waaw teg ñi teg ay cinu kafe tey di jàppale jaamu yàlla yi ñuy naan. waaw loolu moo ko war. waaw ndax bu amee combat ñëpp a jàpp kay. Mhm. moom loolu moo ko war koñ bi luñ xewle rek moom dafa war a teew. Mhm. waaw. Ah. Mhm. tey war a jëm si bis la cinq digganteem ak Liss Ndiago. loolu du combat. pourquoi. loolu du combat. Ah. la jël de. loolu du komba ñun Zarko lañ soxla mais du liis. Zarko ngeen soxla mais du hmm te Zarko xam nga lu leen fa mëna may pour yóbbu leen fa. loolu du waaw yow yalla baax na. Ah. <laughs> waaw mais tay do jenn fop te laajaatuma la benen nga gis deg tamit Ama Baldé jël na ko mbam digënde mo rek boña jël na ko mbam diggante mo rek rek ya bo gisee loolu lum lay def yow. Ama jël na ko mbam mom ak rek rek waaw ak Gris Bordeaux tamit. ak Gris Bordeaux waaw. boña jël rek rek ñom ñaar ah. Lees waxul rek. Ah. waaw. <laughs> waaw ñëwaat si keneen. Baye Fall maa ngi lay ziar. waaw ñu delloo ziar. waa lépp jàmm. lépp taw fee xëy. naka tey. sant yàlla bu si café gi toog de. waaw gis nga de. weer gi noonu la koy dundee. ah ni ma di jaalu rek loo ma mhm. jaalu. waaw. tey tey seen doomu ndey Pokola jëm si combat la 5 ngeen toog fii di servi café pour ba pour jaamu yàlla yi bu ngoonee ñu am luñ toog lan la. ah mbër mi day def lu ko war rek. waaw ndax moom su amee bis jaamu yàlla yëppay génn taxawu ko. Mhm. amul mag amul xale amul paa ñëpp a si jàpp di ko ñaanal loolu tax mu doon koñ bi su xewlee day bàyyi lépp ñëw samp boppam oyof xam nga jox cër ñëpp waaw moom moom Baye Fall bilaay waaw ama demaat si keneen turbi la Baye Fall maa ngi lay ziar am ah, maa lay ziar bu wér lépp jàmm lépp afiya kay yaa ngi am jàmm waaw waaw sant rek yéen si café gi toog de waaw ñu si café gi kay bilaay tey weeru koor gi mel ni ay Baye Fall foqalaal seen mbër yéen ñëpp ngeen toog si weeru koor gi di servir café pour Baye Fall jaamu yàlla yi di am lu ñu loo dëgg la waaw bilaay boo ko gisee moom weeru koor weeru yërmande xam nga weer bi weer bi nga xam ne nii waaw weeru bonus la loo ci def lu baax rek suñu borom da koy fulal xam nga waaw ñu toogal suñu champion bi dëgg neexul muy pokola di ko ñaan ko ñaanal rek moom fi ñuy séntu Ama Baldé dafa séntu Modou Lo waaw moom foofu rek la ngay séntu. si Ama bëgg a dugg noonu fi ñëw Ama Baldé ba ngeen déggee démb jël na combat am diggante moo Reug Reug yéen ngi dëkk Pikine Boy Niang am na combat boo Reug am na combat diggante moo Reug Reug moo Gris Bordeaux yéen lu mu leen def. waaw loolu moom loolu parce que loolu làmb la rek Ama Baldé Gris Bordeaux Ama Baldé Reug Reug Ama moom mi ngi toog si tànk yi liggéey Ama ñu ñëpp la fi nekkal mbër yëpp la fi nekkal. waaw mais euh, ñu leen di xamal ne daal euh, mbër mu ci yaakaar ne. Ama Baldé dafa am si leneen lu mu nekk lu dul si li mu nekkoon yaa ngi nax sa bopp waaw parce que ñun Ama Baldé mi nga xam Ama Baldé mi nga xam démbul bërki démb moom moom moom la ñuy gis tey waaw ñu ngi toog si tànk yi di entraîné de waaw toog ci tànk yi toog fi mu war a toog di entraîné di déglu ñu mu war a déglu waaw di xaar bis bu rafet nag waaw noonu la noonu daal la tey ay cinq minutes cinq eh, yàlla yàlla doon ziar waaw di sant ñëpp di sant ñëpp ci weeru koor tey ngeen teg ay cinu café di jàppale da jaamu yàlla yi pour ñu am lu ñu ndogoo waaw lii yàgg na Pikine li yàgg na Pikine xam nga ne boo ne boo ne weeru koor weeru koor Pikine la fekk baax tamit café Pikine la fekk baax ndax ñun ñoo fi njëkk a def ay social yi nga xam ne dañ ñaan ci mbedd mi def ay café yu baari bu nit ñuy rombee ñu ne koy jox loolu Pikine la njëkk xew keneen ku def rek da ngaa waaye ñun Pikine fii la lépp xewee café gi ñu njëkk njëkk njëkk njëkk segg di ko jox jaamu yàlla yi pour ñu ci di ci xéwalu ci weeru koor ak ay mburug lépp mais dañoo dem léegi ba sant yàlla parce que dañoo dem ba léegi ba ci biir waa parcelle di ko def waa Grand Yoff di ko def waa waa di ko def lépp dañuy sant yàlla rek dañuy sant yàlla rek ak ñeneen ak ñeneen. mais fa laa jógee kon nga wax lépp lépp dañuy sant yàlla yéen ñëpp Pikine ngeen dëkk te yéen ñëpp benn bopp la kenn mënu ko xar mais boo taxawee démb avant ñoon nga dégg diggante Ama Baldé taxaw na diggante moo Reug Reug te mu jëm si diggante moo Gris Bordeaux nga dégg Boy na combat diggante moo Reug Reug gars yi génn loolu lay tas Pikine yow lu mu lay def mais c'est la xam nga tax rof yàqul jën a jël jëlal ko Ama bal jom fit ngor motax mu beure combat bi passé mais ngorom ak bëgg drapeau motax mu beure tay combat bi nga xamné mo passé daf ci dara waye tay inshallah Ama Baldé bi ñu xamone demb ak bu won tay outé na waaw outé na trop trop ñu nan pigine day tass ci ay affaire de combat yi bokk adversaire lu meun pigine ta tass pigine mën ta tass pigine mën ta tass manam dolli may ñoy tass pigine waye pigine mën ta tass ñun duñu ay dooleem ñun fii ñu dëkk fii lañ juddoo fii lañ màggee fii lañ yaroo fii lañ fekkee lépp ñun duñu ay dooleem ñun dañoo dëkk Pikine yaroo Pikine màggee Pikine cent pour cent daw suñu yaram Pikine yi xam nga ñoo koy tas ñi nga xam ne dëkkuñu fi ñooñu ay la waa Liane ñooy te ñooy ñooy tas Pikine waaye ñun ñu si ñëm bopp ñun mënuñoo tas Pikine Pikine du tas. dégg naa la dégg la laaj xaaral ko dégg séeréer grand bi ziar naa la. waaye sant naa la. waaw lépp jàmm. grand ngay grand boy tok tay café gi tay ngeen tok di waxtan ngeen deg dem bu diggante Ama balle ak Reug Reug taxawna Boy nya wala Reug Reug rek nga deg communication yi commencé Pikine day tas Pikine day tas yow lum lay def Pikine day tas loolu non loolu wax bu yaqku la puisque que ñi koy wax ñu ne ñooñu wàll dañ fi wal yaan si rek dañ fi wal yaan si mais fi ku juddoo nek euh cent cent de Pikine wow dootu du ma wax 100% de cent de Pikine di daw sa yaram non loolu doo ko wax quoi ñu wàlliyaan si nag ñooñu sonal quoi lii yëpp ñoo ko indi lii yëpp ñi fi dëkkul judd ñi fi juddoowul yarawuñ si màgg ñëw fi ñooñu sonal quoi parce que ñooy dem fee wax fee dem fee wax fee dem fee wax fee te loolu bu yàggee day jaxase quoi loolu rek mais ku juddee Pikine dëgg wallahi doo def yenn yi quoi. ñoo gisee combat bi Ama Baldé Reug Reug Boy Niang Reug Reug Boy Ama Baldé Gris Bordeaux. Ama waaw ah, loolu dama ci sawra tontu ñun dañuy dugg suñu ruq defaruwaat waaw defaruwaat entraîner laxat suñu ruq waaw dara wax quoi waaw di ñaan yàlla yàlla may ñu ci weeru koor bii ñu dugg ñu dugg si bisimilah génn si alhamdulilah ba booba ba booba la jaajëfal ñu defati suñu manin rek waaw ñu ngi lay jaajëfal waaw ñëpp ñëpp xamee nañu jàmbaar ñu ah. ñun xamee nañu jàmbaar doomu Pikine du ragal du dellu ginnaaw waaw. noonu la demee xam ñëw si Poko Mbaam ziar naa la. waaw delloo ziar. waa lépp jàmm lépp taw feex xay. Poko la champion tey toog say mafia ngeen di defar kafe di servir Baye Fall ñii naan. waaw noonu la demee waaw lii dañoo ñëw fekk suñuy grand di ko fi def rek ñu judd gis ko si koñ bi waaw kon tamit ñun tamit buñ si tollee dañ ko war a def. Ah tamit si ci karam tamit suñuy rax ñew wa non lay démé rek wa non la démé wa boo leen mbeur mbër ñi leen bëggee xalé yi leen bëggee ngeen xamni ni xalé xale yooyu war leen delloo ngeen ñew tok si bop koñ di défar café di leen jox ñi naan. ah avant tout ñuy ñuy ñuy sante yalla bu baaxa baax lu julli ci yeneen bu tedd bi wa di ñaan bu koor gi yalla ci si jobu ci ñu dugg si ci jamm ngeen si jamm yalla yalla nang koor yépp waaw non la démé waaw. yalla yalla dang koor yépp ñi nek si weeru koor bis bu sel tey mbër tey dañuy wax rek mbër bu amee combat ak koor gi tey voilà comme combat nan la koy gérer diggante moo koor gi. non man moom wax dëgg yàlla man moom duma fen sama waxi daaw rek mooy wax sama waxi ren man moom wax dëgg yàlla man moom Baye Fall laa man moom duma wor hmm. waaw man fen quoi ndax parce que moom fii moom waa lu sa bopp waaw noonu la demee rek fii moom gaan ay woor ay woor yooyu noonu moom koor gu nangu moom yàllaa ko xam hmm. mais avant loolu moom maanoo gën koor rek waaw loolu kese la waaw ah, la demee moom. entraînement yi nan lay demee de science yi mu demee lay demee ba léegi wala. non entraînement bi sama course bi ñu entraîné ko de comme ça quatre heures cinq heures bi nii laay dem.